94 Walf Sénégal dellu si di leen siyaar di siyaar mboolem képp koo xam yaa ngi topp sunu site bi di Sénégal seen analyse chronique yi nga xam koy defal saa su ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal di leen siyaar way leen di toppal 94 Walf Sénégal Idrissa Gana xam ngeen ko bu baax a baax muy militaire bi nga xam ne ni moo nekk ci euh, Sénégal euh, euh, équipe nationale Sénégal bi yëpp nag Euh, euh, euh, am nañ tiis am nañ njàqare am nañ tamit metit ndax kenn ku nekk rek loola dal rek ñoom ñëpp dañu ànd mànkoo wax dëgg yàlla méttit lu ko bu baax a baax waaye nag ku nekk xam ne ni yàlla moom bu soxlaa kenn du njëkkanteeg moom waaw yàlla bu soxlaa kenn kenn kenn kenn mënu ci dara waaw ba tax na Idrissa Gana Gueye mi bàyyam moo fi bàyyi ko kon nag sénégalais yëpp am na euh, metit bu baax am nañ naqar ndax Idrissa Gana Gueye dafa bokk ci ñi nga xam ne nii dañuy défendre euh, couleur euh, équipe nationale maanaam dañuy défendre seen réew daal voilà ci côté bi mu féetee muy côté sport bi kon nag Idrissa Gana Gueye wax dëgg yàlla lu métti dal na ko waaye nag du moom lay njëkk dal du moom lay mujj a dal ndax yaakaar na àdduna baaxoo nii ku amul baay bu fi jógee am nga yaay ju fi jógee ku amul yaay ju fi jógee am nga ndijaay fi jógee am nga doom ji fi jóge wala rakk maanaam àdduna daal nañ la ko suñ borom bëggee képp ku matal rek ku nekk da ngay dem li ci des nag mooy ñu ñaanal ko rek voilà bàyyi Idrissa Gana Gueye moo fi bàyyi ko bàyyi Idrissa Gana Gueye militaire bii nga xam ne ni moo nekk ci équipe nationale bu Sénégal kon nag euh, mi ngi noonu kan Sénégalais yëpp nañ ko ñaanal buñ gisee image bi rek ñu ñaanal ko te xam ne wax dëgg yàlla àdduna noonu la àdduna moom demal maa ngi ñëw la rek a Gana Gueye nag day koo xam ne wax dëgg yàlla dafa porté couleur Euh, équipe nationale bu Sénégal kon nag euh, euh, sama gars yi lii nekkoon li nga xam ne nii moom lañ leen fi doon indil fii ci quatre-vingt-quatorze su Walfu Sénégal ñu ngi nuyu ñëpp bàyyiwun kenn dee leen partagé nag dee leen sem dee leen commentaire maa ngi leen di jaajëfal nag yéen sénégalais yi nga xam ne yéen a ngi ci diaspora bi nekk ci réew yi fasantikoo yi nekk yëpp ci àdduna bi gis nañ topp gi voilà 94 Walf Sénégal moom yéen la fi nekkal gis nañ tamit commentaire yi jaajëfal na leen siyaar nañ leen 94 Walf Sénégal lii la leen indil